aaya ji mu jàng mu yaa ayuha alladina amanu ida darabtum fi ba fatabayyanu li ko tax a wàcc yonent bi moo yeble benn xare ñu koy tuddee sariyatu muy ñàngal jël usaamatu bnu seydin def ko muy seneraalu armée ba yàlla dogal ñi dem dajeeg aw nit bañ leen dajee aw nit ñoo ñi ñoo ñëpp daw ba mu des génn góor gu dëkk ci bokk ci famem ba tudd murdaas fekk fami bi mu bokk muy bani murdaas kenn duwut ci julit lu dul moom kenn kese moo tuub ndey saanam gaa ya nag bañ gisee fas ya ak ñi nga borom ngànnaaye armé wu mbokam yépp daw moom nag xolam sedd lool mun a gis naa sama mbokki julit jël gàttam ya làq ko ci benn gannaaw montagne commencé nag di yëkkati loxom di manifester di wax assalaamu alaykum la ilaha illallah muhammadu rasulullah ñaari baat yi rek la xoon moom moom xolam sedd naan gis naa sama mbokki jullit taxawal ma nuyu leen généralu garba di usaamatu ñëw jël jaasi ja dóor ko mu dee mu jël gàttam yépp màngu ko yóbbu ba ñuy ñëw ak fekk na yàlla yónni na jibril ci yonantu bi yonantu baa ngi mer keroog la yonantu bi mer mera mera mer ba xar-xaram ba soppeeku ñi ñëw commencé nag di ko rendre compte nañ di lee ci xare baag ba ñuy wax ak mu wax leen lii waaw yéen usaamatu wan fit moo la war a mën a may nga dajeeg nit ki mu tudd baatab laa ilaha illallaahu nga di ko rey te yow yaa ngi nii laa ilaha illallah moo la may sécurité ba nga ko waxagutoon yaa ngi moom a nga wax ko laa ilaha illallah ñëw sécuriser sa alal ji sécuriser sa der bi sécuriser sa bakkan bi ki wax ko yow léegi lu tax joxoo ko sécurité booba xam nga léeg-léeg nga tooñ sa kilifa ba pare mu mu mu mu lay yedd nga koy tontu sa biir tontu bi nga tooñaat ko moo ko dal nag mu ne waaw yonantu bi dafa wax laa ilaha illallah rek mais ngir ragal jaas yi suñ jaas yi la ragal rek xam nga ko tooñaat na yonantu bi yonantu bi gën a mer ne ko dama lay laaj ndax yow da nga xotti xol ba ba gis ne li tax mu wax laa ilaha illallah ragal jaas tax usaamatu nag xam ne caaxaan fàcc na yonent bi mer na mu ne ko jéggalul ma yàlla wallaay boo ma jéggalul ma yàqu yonentu ba nekk fa di takkaraar noo def ak laa ilaha illallah jëm doon wax noo def ak laa ilaha illallah jëm doon wax nga di ko rey di ko wax ak takkaraar ba usaamatu nee na man su ma yëgoon sab keroog laay tuub léegi nag yonentu bi ne ko baax na danaa la jéggalul yàlla waaye demal nga goreel jaam moom li ma la wax sànq nii rek am na koo wàññi ci société bi foog nga am koo dolliwaat ko demal nga goreel jaam comme moom nitam ña mbokkam ni ay xéeféer lañ nekkuñ ci diina ji du joxe diya ndax nitam ña ay xéeféer lañ moo tax laaju ko benn diya dafa ne ko demal nga goreel jàmm ko waral mu dal loolu nag lépp dafa def ijtihaad ijtihaad mooy nattale sa xam ci li nga xam ne moom nga xamoon nga natt ko ci li nga xamut ba mën caa génnee atte loolu nag daa jàpp na ne kii daal comme gaa yëpp daw nañ moom kenn des fi lima sama ijtihad may moy dafa ragal jasi beug kuko wat watul bakkanam ak alalam ji motax mu wax lolu man timit ci lolu la atte baray ko rek yonentu bi nak neena kep ku def ijtihad ta sahaba yeb mujtahiduna lañ ay borom xam-xam lañ bo defé ijtihad yalla dogal nak la nga atte nek lu jup am nga ñaari payoru payoru ijtihad ga ak payoru jot njub ga su fekkee nak da nga joom te moo dal ngay am moy payoru ictihaad ga waaye njuumte kat sëñ daara Cheikh Modou nee na yàlla du ci fay kenn dara juum na juum kenn du ci fay kenn dara su ko defee nag ah, yàlla wàcce aay yéen damaa bëgg ngeen yi seetlu tey seetantal bu leen rayati nit ñi ci erreur bakkan dafa foor su ma leen yónnee te ngeen dem xare dee leen xool tey seetantal bu baax a baax a baax a baax nit ki boo waxee laa ilaha illallah bu sa yoon nekk ci mbiram baatinam mbiram baatin dama leen ko attiloo ko baaxee leen ma ko waaw dama lay laaj yow usaamatu mii ba nga waxee laa ilaha laa ba tax nga dugg ci diina ji est ce que dañoo xotti woon sa xol di seet ndax dëgg la am déet kenn defoon na ko mu ne ko déedéet moo tax daal boo tooñatee kilifa jàmm ja daal ne ko baal ma rek dañoo juum waaye am na loo xam ne boo ko ca jéemee dolli sax da ngay dolli tooñ ya loolu rek la moo tax moom ba mu dolli xaatee wax ji yonent bi ne ko ndax da ngaa xotti xolam waaye mu ne ko rek ak aqataltumuhu iradata malihi da ngeen koo ray rek ngir bëgg a jël alalam ja noonu la laa ko gisee rek waaye demal nga goreel jaam def ngeen lu garaaw nag li ngeen def bu leen ko defati wàccee aaya ja fekk na aaya ji nag leen jiitu ca yonantu moom lay wax si nii moo tax sama borom ne yaa ayyuha alladina e yéen gaay nga xam ne amanoo gëm nañu alquran ida darabtum bu ngeen tukkee fi sabilillahi ci yoon ngir ida darabtum bu ngeen tukkee di xeex fi sabilillahi ngir yëkkati diine yàlla ji fa tabayanoo na ngeen birlu xool bu baax def tabayun wala taqooloo bu leen wax mukk liman ñeel ka nga xam ne alqa sànni na ilaykum jëm ci yéen assalaama ak nuyoo wala taqooloo bu leen wax liman ñeel ka nga xam ne alqa na ilaykum jëm ci yéen assalaama ak xommatu bu leen ko waxati mukk ne ko lasta déet yow mu neen ngay aji gëm xamu leen la ca xol ba yéen nag dangeen ngeen koo def rek tabbu taxuuna mbir moomu yéen a ngi sàkku aradal xayaati marchandise am àdduna duniyaa mu jege mi fa indallaahi nekk na fa yàlla mu ay màng kasiratun yu bëri kazalika naka noonu kuntum ngeen nekkoon min xablu ci njëkk ñàkk sécurité ci seen alal ci seen bakkan ngeen wax laa ilaha illallah kenn vérifié seen xol yi bu ko defee ñu nangul leen ko looloo waroon fa mën na xewee na laahu yàlla aleykum ci yéen kon fa tabayyanu dee leen birlu ina laaha naka yàlla kaana naka jekk xabiran ku dañ kumpa la bi maa tam na xam yéen a ngi koy jëf de indi na baatab tabayun ñaari yoon rek ta kii ko maanaam feddali ko ngir bëgg nit ki settantal fatabayanoo ju njëkk gi doyoon na mu ne fa mën na laa wa aleykum fatabayanoo tamit indiwaat ko ñaareel gi kon lépp luñ la wax boo ca teeyut doora tontu mënoo caa ñàkk a juum lépp luñ la dugal boo ko laajtewut nga vérifié wul bu baax vérifier ko ba mu leer nga door caa dugg mënoo ñàkk juum te li gën a yées nag mooy kilifa guy juum dëkkee ko juum baaxul ci kenn waaye mi ngi gën a bone ci kilifa ndax koo xam ne boo juumee ñépp juum war ngaa fexe ba say juum néew moo tax yàlla ne bu ma leen yebaletee ngeen dem xare de leen def tabayun bu baax a baax a baax a baax bala ngeen rey nit ki na fekk màndargaay xéeféer yépp dagee ci moom ci cholayam ci comportement ham ci waxam mais cholaye comportement sax bu ci àtt nit ki bayil ba wax mba mu jëf ba leer ngeen del ko def waye tay ñii liñu def bu xamutoon kilifa gu day ne yonentu yalla muhammad dañ yàqule ba faw waye lima la waxoon rek leen may sens bokku giñ bokku ki daayir ku fat rek mo leen dimbali waye buñ ko xamutoon du baax mukk ndax def nañ lu grawa grawa grawa nit ku wax la ilaha illallah xolam sedd na gis na samay mbokk sama tumuranke jeex la leen taxoon mu wax ko jàpp ne bokk na ngeen ray ko jël xalalam njuumte mënu koo paase dara mënu koo paase aaye ji tegu ci nag dafay wax ak jihaad am gim am doole gàddu sa jaar ci dem xeexi ngir yàkkali toolab lislaam payoor ga ca ne yàlla mi koy joxe dong moo ko xam jihaad l'islam dafa bari ay darajaat dana ko sax lim dana ko wax ca kanam dugg ci l'islam rek darajaat la nangoo jëfee attay ci jullee woor ak ya ca tegu darajaat la dem jihaati darajaat la sopp tubi bi darajaat la yu si nekk rek darajaat yu dul jeex la nga raye mbaa ñu ray la darajaat la yàlla nag ne ñi am daraja ñi am daraja yi yépp te amuñ darajatu gàddu ngànnaay dem xeex yi mënuñoo ñu ko xam ku gàddu jaasi dem xeexi fi darajatu xem ci lislaam rek foofa nga xem foofa la daraja gën a kawe ci lislaam foofa la xem léegi nag aaya ji nag wàcc ne laa yastawi alqaaiduna min almuminina wal mujahiduna loolu moo ci tegoon xayru dara darari amu ci woon bi ko yonantu bi jàngee euh, maanaam saydu mu ne ba ba muy wàcc man sama tànk yi mi ngi dend ak yonantu bi même su ma teggutoon sama tànk kolehu gun kolehu ci moom sax tàngoor wa ak doole ja mën naa yàq sama tànk ma paralysé faw ndax yonantu bi bu daan aay bu daan wax yu wàcc dafay diis bu ko fekkoon ci kaw gi da nga gis muy lox di lox ba rëppatal daal ndax inna sa nulqi alayka qawlan thaqilan looloo tax nag saydu mu ne man maa xaw randal sama tànk yonent bi ne ma bindal laa yastawi alqaaiduna min almuminina walmujahiduna ma bind ko mu wax ma fi ma ko war a dugal fii ci suratu nisaa mu fekk fa benn silmaxa muy um ibnu ummi maktuum silmaxa la bu bari xam-xam te maandu yonentu bi daana dem xare di ko bàyyi ca jumaa xam ja mu fay mu fay jiite ci la borom xam-xam yi jëlee ne silmaxa mën naa jiite jumaa dara nekkut ci moo daan jiite gannaaw bu yonent bi daan ay xare xare bu ne ak ka muy wutal rek mais yonent bi wutal na ko ci xare yu bari yoo xam ne moo fay des yàlla nag li mu dëxalee daraja yu kawe ci jihaat na ñi ko def mënuñoo xem ak ñu ko defut noppi ca mu ne yonantu bi man silmaxa la te xam nga ne silmaxa du xeex kon nag man ban ran taxawee ku war a dem jihaati te mënoo jihaati da ngaa dangaa ngaa da ngaa handicapé da nga nekk handicap wala nga nekk koo xam ne da ngaa gumba nekk silmaxa wala nga nekk am màggat wala nga amee loru loru yoo xam ne ku ne xam na ne mënoo xeex fooy taxawee yonentu bi sëgg ku ñuy wax loo kat boo gisul wax doo mën a wax ne taxawal li ma laaj ma laaj ko jibril mu laaj ko jibril ne ko kii kat abu ah, ibnu maktum kat posé na ma question boo xam ne mënu ma ko tontu ñi mën a ñàkk jihaate gi la loru fu ñuy taxawee jibril ne ko xaaral ma laaj ko yàlla sim tuuti rek jibril xotti juróom-ñaari asamaan yi maanaam xotti suuf si ba yegg ci premier asamaan bu ñaareel ba fu ñu tuddee baytul sama borom jox ko ñetti baat yi ne ko demal nga jëli ko nga dolli ko ci muy xayru muy xayru uli darari ñetti baat bu bëtt asamaan yi boo ko doon jël tey doxam ñaata la fii ba asamaan doxam juróomi téeméeri xat la bëtt asamaan si talaay bi doxab juróomi téeméeri xat la su ko defee nag mu door a jëli loola muy aller retour muy ñaata ñaa doxab ñaari junne ñaari junne hat ñaari junne hat la jibril jëli ngir ngir ngir ngir indi ñetti baat xam-xama for kon ci ngay xam xam-xama for cheikh al islam haji ibrahim mu ne xam-xama for mu ne bala nga xam fora yu xam-xam rek ñetti baat yi rek tax jibril traversé doxab ñaari junne hat pour jëli ñetti baat motax kon buñ la fayalé école ne demal jàng ngay daw cour xamoo xam-xam sa papa sonu la nañu suñ ciono léegi mu jeex ya nga université nga nek fa di caaxaan xamoo li xew nga nek ci daara ja timit sa papa ne dem leen ngeen jangay nek daw rek ta di nga mbir mu ne bo ci tol do ko bëgg bu passé rek nga koy doora bëgg ben way neena ma man dal dima won jang ba buñ daan ñibi ndar dama daan bëgg sa auto bi kepp mané kon bu ngeen déé mu ne ma saxem fa loolu loolu la bëggoon <laughs> ngir ngir bañ jang te loolu ko ne jaar na ci presque bo ci do ko xam waaye bu demee ba wan la gannaaw nag ngay door a xam ne ndekee jàng lu dul moom amul kon gis nga ko xam-xam lu xam solo la jar na bàyyi xel moom lay wax si nii yàlla ne laa yastawi du xemoo alqaayiduna way jékki ña minal muminina ci way gëm ña xayru uli darari laa wax nag lu dul borom mi lor yaa mel ni ummi maktum mu gumba walla koo xam ne dafa paralysé walla mu feebar wala mu wéradi wal mujahiduna ak way jihaad ña mënuñoo xem de wal mujahiduna ak way jihaad fi sabilillah yëkkati diina yàlla ji ñu koy defee bi am waalihim seeni alal wa anfusihim ak seen bakkan faddala gënal na laahu yàlla al mujahidina way jihaad ña bi am waalihim seen alal wa anfusihim ak seen bakkan gënal na leen alal qaayidin ca way jëkk ñi nga xam ne xamuñ benn lor gënal nañ ci daraja tan daraja waaye nag ànd ak loolu bokkul ak ñoom ñëpp waxaada dëxal na laahu yàlla alxusnaa aljanna wa faddala gënal na laahu yàlla al mujahidina way jihaad ña alal qaayidin ca way jékki ña ci lu duhut lor bee mooy loru maanaam bi xayri bëri mooy bi xayri dararin gënal na ko fii nag fii nag nga xam ne maanaam ci lu duhut lor bii mooy bu mujj bi ajaran payoor tawul mooy lan xam si man gu màgg payoor gu màgg lan la mu ne darajaatin ay daraja laa wax min gu baxee ko ci moom wa maxfiratin ak njéggal wa rahmatun ak yërmande wa kaan nekk na laahu yàlla xafuran di jéggalaya kon man di ko bëri yërmande kon même boo amee loru loru ba mënoo jihaati ki dem jihati ëppale na la benn daraja ndax l'islam point la loo def rek marqué benn point tudd nga baatu seede bi marqué marqué point julli nga marqué point xor weeru koor marqué point joxe asaka noonu aj màkka noonu yooyu yëpp boo ko defee te yow jihaatoo ka def jihaat ba donte yow da ngaa am loru kooka marqué na point boo marqué wul moo tax daraja tan foofa fii nag moom su fekkee yow nag amoo benn loru nga ñàkk dem jihaati darajaatin lay doon da koy jamo jamo mu ànd salim boo demee ibnu abbas ne dara jaar ya man na juróom-ñaar fukk benn bu ca nekk xëppee na asamaan ak suuf moo ko xëpp moo moo diggante asamaan ak suuf kon ña dara ña ña ña ña jihaati bu ëllëgee bu leen yàlla fayee seen payoor ya ëmm bu leen ñuy dugg ak teraanga ja ñu nekk ku deful luñ def doo xam lu mel noona kon jihaat nag du jeex kenn ku ne ak nanga ko manee gàddu jaasi di jihaati cala jël sa alal tabax ay daara tabax ay jumaa seen néew ju doole yi nga dimbali leen loolu lépp ci jihaad la nit mën naa jihaad ci dooleem nit mën naa jihaad ci xelam nit mën naa jihaad ci xam nit mën naa jihaad ci ci ci alalam nit mën naa jihaad ci ci ci ci relation am nit ku ne ay bunti jihaad yu bari mu ci sa ji boo ci def nag te moom nga man yàlla fay la kon euh, jihaad a ngoog aaya ji tegu ci nag xam nga ci njëlbeenu lislaam loo gëm gëm gëm diine di gëm yonantu bi te gàddaayi huloo sa ngëm nga dañ koy jàppee muy ngëm gu takku suuf moo tax sax boo amee ay mbokk ñu dem gàddaay yi soo deexee duñ la doon yow boo deexee duñ la doon parce que l'islam séparé na seen diggante ndax li ñépp war a bokk ku ca génn yaa ko yàq boo nekkee ci ab dëkk dëkk ba ne mbooleem ñu nekk ndakaaru dëkk dëkk sàngam mbaa mu bokk gox sàngam dañoo def genn kees weer wu dee semaine ba ca nekk dañoo war a dajee war a cotiser pour mën a wut ambulance mën a wut hôpital mën a dimbali ñu fa nekk boo dëkkee ca dëkk ba te bokkoo ca yaa ko yàq yonentu bi nag booba bëgg naa tabax état islamique te booba pour mu mën tabax état islamique dëgg foog mu xam masurité masurité nag la koy gën a joxe ñi nga xam ñëpp nekk ci su boobaa danañ am sensu am xam-xam waaye ñee buñ nekkee fële bu aaya wàccee fii téléphone amul maanaam whatsapp amul kañ la ñuy jot loola nga nekk ci kanam yonentu bi ñoo leen ëpp xam-xam te yonentu bi xéene na ñëpp xam xam-xam xéene na ñëpp baax mu sañoon lu mu xam ci njaboot nekk ci kër gi te boroom njaboot gu ne sax loolu ngay bëgg kenn ku ci nekk sa njaboot feeg managut boo sañoon du génn kër gi boo xeewoo gis leen teete leen wan leen yoon ñi xam ni ngay nekkee ci kër gi xam ni ngay doxaleeg jigéen ñi ba bu ëllëgee buñ beroo rek mu yomb buñ demee nag ba man ko nag nga door leen a ber loolu la yonente bëggoon dafa bëggoon lu mu xam ci njaboot nekk ci ronam mu fexe ba ñoom ñëpp ñëpp ñëpp xam xam te borom xam kenn mënta xeex ak moom fexe ba ñoom ñëpp xam yoon wu ñuy jaar ba mën a jihaati xam ñoom ñëpp ni ñuy fexe ba mën a gëm seen bopp xam liñ am xam kiñ am loola nag ku ko fekkee wut lu bari faat na la te lu ko fekkeewul yaa ngi néewal doole mbir bi moo taxoon ku gàddaay yëhut yàlla du konte sa dara ku mën a gàddaay te gàddaay yëhuloo yàlla compter wut sa yow dara moo tax bi aaya ji wàcce gaa yi dañoo tiita tiita tiit mbooleem ña fa nekkoon kenn ku ne pexe moo mën a def pour gàddaay rek da def gàddaay ku fa def rek da ngaa mënutu dara waaye ku mën effort lu mu tuuti am na koo xam ne dafa màgget màgget mënu dara mu ne mais xam naa alal nañ ma fay ay nit ñi xenu ko yóbbu ko ba ci woon mu far dee ba mu xeggee naim rek ci woon wi la dee ba mu dee rek gaa yi na commencé bàyyi ñaari wax musriku ne naafiqu ne perte na xegse lañu waxoon te xeggut jullit ñi ñoom xamuñ li xew ndax aaya ji xegseegut ñu ne ah bu xegse woon mu gën a baax de yàlla wàccee aaya ji ne kooku kooku gàddaayam si na ba man yuhaajir fi sabilillah wa ba ca su may duri kool mawtu a waqa ajru ala llaah mu lay wax si nii bu njëkk ba lay wax ña fa desoon moo tax mu ne inna lazina daal gaa yi nga xam ne tawafaahum dana faat leen almalaaikatu malakal mawti da koo màggal rek moo tax mu jamxo ko waaye jamxo na ko tamit jublu ca ñu koy dimbale juróom benn koy dimbale buy doggali jullit juróom ñett ya jàpp ca bu fekkee day rayab xéeféer yéen ñett ya jàppale ko muy juróom benn bu ko defee faalimi anfusihim mbir mu ñuy way tooñ seen bopp ci ñàkk gàddaay yi ba far dee xaaloo malaaka yooyu di leen rey ñu ngi leen di wax ne fii ma kuntum yéen ci lu ngeen nekkoon xaaloo ñuy tontu nekkun naa nekkoon nañ mustadafin du ñu lompañ loo moo tax mu fi ardi ci suuf si malaaka ya xaaloo tontu leen ne alam tàkku ndax nekkut ardullahi suufu yàlla si waasiatan di aji yaatu fa tuhaajiroon na ngeen gàddaay waay fiyaa ca suusa fa wulaayka yooya gaay bañ a gàddaay ba dee ma waawum seen tàpp waay jahannam mooy safara wa saat bon na masiran mujjuwaay ba mu setti ca ne ilal mustadaafina lu dul ñu lompañ looña mina rijaal laa la moom góor ñi la wa nisaa yeeg jigéen ñi wal wildaane xale ya ibnu Abbas ne sama yaay ca jigéen ñi la man ci xale ya laa fekk ñooñu laa yastatiwoona attantit hilatan menn pexe wala yotuna ko sa sabilan ci wenn yoon pour mën a gàddaay fa ulaayka yooye gaay laa amaan na yàlla an yaxfoo mu jéggal xanu walis leen wa nekk na laahu yàlla maanaam wan di bale xaakoon xafuuran tamit di jéggale xaakoon kon ñii nag nga war a mën a gàddaay gàddaayi huloo ba ñu ray la nga dee ci àll bi da dem safara li ko waral nag ñooñu dañoo toogoon gàddaayooñu ba badar jot xare badar bi mu jotee ñu gis mbooloom te boobu ñoom tuub nañ waaye seen tuub gi manifesté wuñ ko ndax buñ ko feeñaloon rek xéeféeri rey leen ñu nëbbu seen seen tuub gi ba yéeféeri màkka ya xamuñu woon ne ñoom tuub nañ léegi nag ba gaa yi génnee jëm badar buñ demut dañu xam ne xéeféer lañ ñu rey leen ñu mujj ànd ak mbooloo xam waa badar ma dem nekk ca làng ak xéeféer ya ndeysaanam ba ñu demee ba gis ne yonent bi mbooloo mi mu xam bariwut ñetti téeméeri nit ak fukk ak ñett muy trois cent treize ñetti nit ñoo ci am fas presque ay juróom-ñaari nit ak nangam ñoo cay am jaasi ñu ne non non bu ñu xeboo ne làng gi ñu nekkoon bu ñu xeboo des ke rek bu ñu demee fee tamit dañuy dee yàlla dogal ñi des ke làng xéeféer yi ñoom ay jullit lañ ba dee ñi rey leen bi leen saaba yi ñëwee di xool bu ñu xool ne mais kii jullit la mais kii waaye gis nga feebul baaxut feebul baaxut loo nekk bu ko ragal a manifesté waaye loolu na moom dal mu ne ñooñu nag safara lañ jëm fulaaka ma waahumu naar mu mu ñu mu dem tàpp seen tàpp waaye safara waaye nag mu ne ña fa des nag mënuñoo gàddaay ngir dañoo amul pexe ay màgget lañ amuñu leen yóbbu ñi nekk ay xale amuñ menn pexe ah doguwul te dafa ne xasallah amaan na yàlla mu jéggal leen ndax yàlla baleexaa kon la ko mën a jéggale la a ji nag ndeysaanam ba mu wàccee lii nag la waajooju ma waxoon la ndeysaanam muy màgget moo xam ne dafa màggeta màggeta màgget ba mënut dara mooy ibnu dubrata màgget moo xam ne dara dara mënu mu ne man nag dëgg-dëgg bokkuma ci mustadaafina yi ndax ku bari xalal la millionnaire la waaye dama màgget rek nu may def nag mu ne naa fay ay nit xam nga eh, arab yi naar yi dañoo bëgg xaalis ba demee màkk nga koy xam loo def loo loo fekk yaa ngi mën a joxe ngi defal la ko da nga gis ñoo xam tay bu ñuy wër kaaba gi ay ponkal ñoo lay xanu nga tok ci kaw kii ba ñu wërale la kaaba gi da nga gis ponkal mo xam tim du man dara tok ci pous pous waajee ñew timit di la pous ba def ba doxal la ak marwa xamna ñu la mëna ñël jàllal bi ko jël engagement pous la ba yobbu la harafa bu ngi def taxaway yak la ci xaju lepp khalis jaral na len lu ne ba waaji na ma am naa xaalis mais def am ñu nek ñoo lay xam ñu xenu ko di ko yóbbu Madinatul Munawwara te diggal xool diggante Madinatul Munawwara la fa dox ñeenti téeméeri kilomètre ak lu teg ah yàlla dogal mu dem ba Naïm rek mu dee ba mu dee nag gaa yi ne ah moom daal perte na rek ndax de gàddaay lañ wax te xeegut ñenn ñeneen jullit ñeneen ñoom ah bu xegsi woon mu gën a baax de waaye comme xegsi wu daal ñun mënuñaa wax ci moom dara yàlla wàcce aay ñu ne baax na de kii xegg na de man yàlla ci dogu laay fay képp ku dogu ngir def dara langa nga dogu xoon même bu sot bu parewut bu sottiwut man sottal naa yàlla ba pare ba ngay dogu rek laa sottal kon yàlla yàlla ku bari yërmande la moo tax nit ki téere yi dem nañ sax ba ne mu fassir woon demal ci tafsiru xaasin mu ne nit ki bu jaayante woon ak yàlla bëgg a mokkal alquran jël dundam lépp def ko ca moo xam xale la moo xam mag la sonuta mokkal dee mu ne buy dem barsaq rek yàlla dana ko boole ku ko mottali xaliwaam foofa neex naa dégg ndax yaa ngi dégg ñu ne jullit ñi dee te mësoora buñ nekk ay xale fii kafaalati sayyidina ibrahim yonentu yàlla ibrahim moo leen yar ñi mottali seen jàngama di continuer mu ne tamit ki jug ngir sàkku xam-xam sonn gut a dagal dee ba demee foofu dana am koo ko mottali dar somba ki jug doon def lu baax di naafila guddi téeméeri rakka dem ba ci kanam mënatu ko yalla dañ bind Malaka mo xamne moy taxaw taxaw am dina di la limbam fi la ak dog yam don jang yam ñi bind ko ci carnet bi jëfam moo tax liggéeyal yàlla moo gën a de tubab bi bokay koy bo boo ba manatulo Amna as bo xamne sax boké tollé tollee ñu da nga wara tété far force ñi lay fay ay passion yu mois moy sa man-man wàññeeku na sa sar say dara wàññeeku wut ci waaye ñoom lañ la doon fay moom wàññeeku na yalla nak mu ne man duma lool nit ki ku jël ak man contrat danaa la fay ba ngay man nga dem mën a doo ma lay fay nga dee ma continuer di la fay isa maata insaanu inqata amalu ila min salaatin sadaqatin jaariyatin aw ilmin yuntafaxu bi aw waladin saalihin yad'u la kon nañ liggéeyal yàlla ku jël sa ndaw jox ko sa borom boo demee ba nekk mag yàlla téyel la sag mag nga dem ba sa mag dem mu téyel la sag dund nga nga waroon a continuer lépp loo doon def ci lu baax daal ba nga demee ba dee mënatuloo ko danañ remplacer jëmm yu koy def wala jëmm ju koy def ñu koy enregistrer sa carnet bi jëf bi kon liggéeyal yàllaa wóor moom lay wax si nii yàlla ne waman yuhaajir képp koo xam ne gàddaay na fii sabilillahi ci yoonu yàlla yajid dana fekk fil ardi ci suuf muraaxaman palaasu gàddaay waay kasiran yu bëri wasaatan ak yaatug wërsëg nam ko bëggee dana ko ko xamee wa man yaxruj képp ku génn min baytihi ci néegam muhaajiran bi muy aji gàddaay ilallaahi jëm ci yàlla war a rasuuli ak yonantom bi su ma ko su ma yudrikoo topp gannaaw si ka jot ko almawtu dee su ma yudrikoo topp gannaaw si ka dogale ko almawtu dee kooku de faqat waqaa sa dëgg-dëgg tàbbi na ajroo payoor ak gàddaayam alallaahi ca yàlla wa kaana nekk na laahu yàlla gafuuran di jéggale akol rahiman di ku bëri yërmande xoolal kii mi ngi dem heggagut yàlla ne hegg na de dogu gi rek moo ci am solo moo waral kon ba mu dogoo rek laa ko dogal la gaa yi war a xam lépp defal naa ko ko tamit ngi nii ci yoon wi la génn àdduna aaya ji ci tegu nag dafay jàngale wàññi julli mooy aaya ji jàngale wàññi julli ci alquran euh, mooy wa ida darabtum fil ardi fa laysa aleykum junahun an taqsuru min as salaati muy wàññi julli moom nag day ñëw wax sunna mooy ñëw di leeral ban distance nga war a tukki mën a wàññi julli man tukki nga war a tukki pour mën a wàññi julli yan julli lañu war a mën a wàññi tukki ba tamit ban diir nga fa war a mën a def ba tax nga war a wàññi loolu lépp yoon yoonu alquran nekku ci dafay wax moom yax ba rek sunna ñëw leeral ko borom xam-xam ñëw commentaire waxi sunna muy waxi yonent bi moo tax sunna mooy leeral yonent bi mooy leeral waxi yonent waxi yàlla moo tax yonent bi wax ne utitul qur'ana wa mislahu wa mislahu yooyu nag mooy léegi borom xam-xam yi ne tukki daal ma tax nga sañ a wàññi sa julli boo jëlee ngiru imaamu malik lu mu néew néew dana mat 70 kilomètres kon jàppal ne diggante ndakaaroog cees daal ko tukki rek man ngaa wàññi julli ya ñuy wàññi ñeent la tusubaar gehe waaye timis kenn du ko wàññi suba moom wàññi na boppam ba pare kenn du ko wàññi su ko defee tamit tukki miñ sañ a wàññi tukki moo xam malik nee Nekul nekkul tukkee mooy yàlla waaye ku tukki tukkee mooy yàlla foo tukki jëm mu ne damay seetaani làmb foo tukki dem mu ne damay dem ca concert ba xaw ma foo jëm mu ne ca ndagala foo jëm ca nangam ba yooyu kenn du ci wàññi julli ak tukki ma sori sori tukki muñ dun mooy yàlla la malik wax waaye tukkee mooy yàlla kenn du ci wàññi julli muy muy ñaar ca tukki ma wax naa la distance ba 70 km 70 km dix wax naa la tukki ma la koy waral wax naa la julli timi dañuy wàññi su boobaa tusubaar ñaari rakkaa gexe ñaari rakkaa tàkkusaan ñaari rakkaa tukki ma timit ci sartaab doo fa sax lu hëpp ñeenti fan mooy doo fa julli lu hëpp ñaar fukki julli tukki mo nara julli tukki tukki mo nara julli lu mat ñaar fukki julli jëm kaw dootoo wañeti ñaar fukki julli nak moy ñenti fan rek leg leg ñenti fan sax manki ñaar fukki julli ndax fekke nga julli suba julli tu suba door dem manki na ñaar fukki julli te def nga ñenti fan fanan ko fa fan kon ñen ñaar fukki julli dal kon nama na ma julli dootoo wañeti jëm kaw ludul nak may nañ la nga wañi boy dem ba ba ngay xeggee ak booy ñibbisi ba ba ngay xegg fi nga wàññeekul mooy tukki mi daal yaa jëm kaw la ñaata fan nga fay def nga ne une semaine dootoo wàññeeti boo xeggee kaw la de waaye julli gu la dab fii ba ba ngay xeggee kaw la boo bàyyee ko kaw di ñibbisi julli gu la dab feeg ba ngay yegg see croisement jam ñaajo wàññil kon dem gi aller gi ak retour bi ci nga sañ a wàññi waaye nag boo xasee xegg fa nga jëm dootoo wàññeeti am na ci tukki mo xamne ne yegge ci dekk ba do wañi yaa ngi nii di tukki man 70 km tukki man nekul tukke moy yalla waye fofa ngay tukki kat dang fa am soxna so xamne ne xaraf nga ak mom so comme nak kos mas nga xaraf ak soxna si te ci dekk ba nga jëm rek tumurankeytoo fokk da ngay matal bu ci tegu timit tukki sa dekk lañ wax waye tay wa ndakaaru yi nek fi di ma déglu bawal ñii saalum dëgg-dëgg foofu lañ dëkkoon waaye dëkkatuñ fa boo demee ba nga xam ne sa waa kër yëpp ñu ngi ndakaaru say soxna fa nga dëkkoon fële ca bawal amoo fa kër amoo fa soxna waaye waaye foofa sa dëkki waajur la waaye duhutu sa dëkk boo fay tukki man ngaa wàññi ndax dëkkatoo fa mu ngi mel ni nga faa dëkkoon waaye déplacé wu nga nag ñëw tuxu si fii kon su boobaa fi nga tuxu si yàgg sa ñooñ foofa mooy sa dëkk waaye fee boo fay dematikat kat dëkk yëpp fa xam doonte sa waajur la léegi nag li ñuy bañ sayyidatuna Aïsa moom daanul wàññi mu ne moom dafa gis ne mooy yaayu jullit ñëpp kon fu mu dem rek ak njabootam la fa fekk moo tax moom daanul wàññi Omar ibnu Xataab laaj na ko yonantu bi ne ko waaw jamono ji fi mu ne ñun sonnatuñ ci tukki mën ngaa war sa gëléem léegi léegi dem la doo am benn jafe-jafe yonantu bi ne ko kado la bu ñu yàlla defal te booba sa Mercedes yi amagul 4 x yi amagul avion yi amagul kon su boobaa sa tukki mi doonte sol nga yëre yoo xam li nga toog furwaase wut sax kado la bu la yàlla may sama moromam nit bu la mayee comme nga jël yàlla bu la mayee jëlal moo tax kon tukki yi yëpp boo ko defee su wàññi gi nag mooy sunna moom lañ gën a bëgg nga wàññi daal dëgg dëgg ci tukki moo gën nga ñàkk wàññi ngay matal ba nga wàññi nag yàlla ku bëri yërmande la naafila yi nga doon def yëpp daf la ko wàññi waaleel waaye bu la yàlla wàññi na julli farata gi nga yokkaati ay naafila nag su boobaa tamit dafa bëggoon nga gën a noppalu te yaa ngi yaa ngi sonal sa bopp bo waranteeroo nak ne man dafa am rakka yu ma ak yalla ci teway ak ci tukki munuma ko ñak julli bo wa timit boko defé yalla fayla wa ma tafalu min ya'lamu allah kon yoy boko defé defee yalla fayla kon tukke ngoko motax muné wa idha darabtum su fekke ne da ngeen tukki fil ardi ci suuf fa laysa alaykum warul len junahun bakar an taqsurun ngeen wañi min julli waye julli ya nak moy tusuba takusan gehe ba ngeen wañi moy in khiftum bu ngeen ragale an yasnakum bi final li li nga xamne kafaro we dinañ nañ anam ndax inal kafir naka yeferi kaanoo nek nañ addu won di non mu bi nañ ci aji lak non lakum ñaal len de mu ne su fekke na nak lol nak la mafhuma fihi ci place bi moy bu ñeuk ba dañ nga ragal fitnal lah waaye léegi nag même boo tukkee ragaluloo benn xéeféer fitnaal la mën na soixante-dix kilomètres amoo xéene sax fa lu xëpp ñeenti fan tabaarakallaahu amoo fa soxna mën ngaa wàññi tukki ma nekkul tukkee mooy yàlla donte ragaluloo xéeféer yi fitnaal la loolu bu njëkk ba la woon mais loolu bokkatul tey ci ñun ñii ñu ko defandikoo léegi léegi nag gannaaw julli googu bàyyi na ko julleeg wàññi yàlla ku bari yër la juleeg wàññi ngi nii boo tukkee rek ngay xam ne billaahi li tax yàlla indi juleeg wàññi yàlla mi ko def moo ko xam ndax dëgg-dëgg léegi tamit bu tukki mi yombee yaram yaram yi wératuñ yaram yi seddatuñ bu njëkk ba tamit sahaba yi seen tukki mi metti woon na waaye yaram yaa yaram yaa wéroon waaye léegi nag dëgg-dëgg tukki mi sedd na lool waaye yaram seddut su boobaa kon bu wàññi amul rek dana metti bala nga koo gën a xam nag nga dem màkka billaay fan yi ngay def minan boo wàññiwutoon ngay xam ne dëgg-dëgg bu nga xam ne yàlla bari yéen ma ni pour nga julli rek problème la ndax foofu njàpp li mooy problème njàpp li pour nga jàpp mooy problème ndax yow boo waree dem jàppi te toilette boo xam ne lu ëpp ay junni nit ñoo ko bokk mën ngaa ñëw fekk fa ab rang ak noo mën a mel yaa xam da ngay ñëw taxaw rek rang ba nekk ci yow nga door a mën a dugg defar sa bopp bu la neexee jàppee fa pexe amut bu la neexee nga génn door a mën a jàpp euh, moo tax tamit rawat na nag conditions yi jàpp nag ma nga gën a ma nga gën a méttiti boo demee Makka wala nga dem Madina nga xam ne boo xasee dugg ci jàkka ji pour nga génn bay dem fi toilette yi nekk rek problème la même boo demoon yow boo ñëwee sa place bi nga bàyyi woon mën nga ko ñàkk da ngay fekk keneen toog fa mais mën ngaa dem ñëw sax dendoo nag nit ne ko té téel ma sama bagage bi boo ñëwee dootoo ko gisati moo tax foofa man la ma leen wax ma demee màkk damay wax daal damaa foog ne màkk gi Assane Diouf wax naa ko ko man daal foog naa ne Assane daal màkk daal njàpp gaawul fee toj de ndax léeg-léeg nit nelaw nelaw nelaw ba sànni tànk ya buñ ne julli rek mu taxaw ma ne maa yaakaar ne sam-sam bi la de <laughs> waaye ma ne waaye boo ko seetee dara am na waajoo xam ne dañoo dend mu nelaw nelaw ba sànni tànk ya waa gi ñëw fëgg ko ci dokk bi ne ko ilal xamaam waaye waa gi jug rek moom laa ilal xamaam mais ilal salaati directement mu basara ñi taxawal julli gene mu dem taxawal julli ga motax dal japp dal daal ni mu yéex a tojee man lool dal jaaxal na ma lool xawma nak condition japp ya metti ba ëpp ndax bo toge fi bala nga wacc bay dem bay jappi benen problème la waye bo demone mi na da nga xamne buñu ko ton julli dana metti lool nga dem waxi nopp kon yalla ku bari yermandi la wañi da fay jangale Euh, euh, xawfu mooy salaatul xawfi salaatul xawfi gii mooy julleeg ragal yàlla ku bari yërmandi la dafa am nu ñu mayee buñ ragalee suñuy noonu nu ñu war a jullee loolu mooy lan fekk yonentu bi ci benn xare euh, ñi ne xaswatu maanaam asfaan la tusubaar dafa jot rek yonentu bi julli ak saxaabaam yi boobu Xaalid ibnu Walid tuubagut ma nga ca xéeféer ya mu ne ñun de dañoo dañoo fàtte dañoo waroon a bàyyi heure ba ñu julli bañ sujjootee rek ñu fekk leen fa maasale leen ñoom ñëpp ñu dee ndax ñoom buñ xasee nekk ki julli dootuñ compter ci dara te xam nga ngay duma ni fekk ko mu ma nga daanu ba pare sujjoot na day neex day gën a yomb ñoom ñëpp ñi bokk fas ne daal am na geneen julli gu nekk gi seen kanam moo leen gënal seen njaboot moo leen gënal seen bakkan muy salaatul asri ndax mooy salaatul wustaa yàlla ne xaafisu ala salawaati wusta mu ne ko googu moo leen gënal lépp te mu ngi kanam soreetul nañ leen bàyyi bu demee ba foofu bu ñu julli rek ba ñu rukkoo boole ko sujjóot rek ñu fekk leen fa maasale leen ñoom ñëpp ñu dee yàlla nag wàcce aay di jox ko yonent bi ne ko bu tàkku tàkkusaan jotee bul julli nag daan jullee danaa la may julli koo xam ne dangay xaaj sa armée bi ci digg bi benn xaaj ba di leen garder benn xaaj ba yéen yéen i julli su boba nak comme da ngeen di wàññi julli gi jullil ben rakka rek nga jang fatiha ku sar ñom ñu jang ñom ñu nek sa gannaaw nga rukkoo ñu rukkoo nga sujjoot ñu bu nak ba ya pare bu la neexee nga ngaa war taxaw sax ndax ben rakka kenn du ci tok jugal taxaw bo jugee taxaw fofa nak nga tàggoog ñom yobbal bo taxawé taxawal rek bu la neexee jang bu la neexee nopi bo noppee wa nga bu pare ñom nak ñu kenn ku ne jangal bopam fatiha sar boppam saar rukkooxal boppam sujjootal bopam taayaal boppam sëlmalal boppam kenn du roy ci kenn buñ paree dem yori ngànnaa ya après nag ña julleegutoon ñëw fekk la nga taxaw ñu kàbbaar sa gannaaw nga jàng sa fatiha jàng sa saar rukkoo sujjóot taaya sëlmal ñoom ñu jug mottali benn rakkaa bi nga leen rawee xoon yàlla bari yërmande nii mooy julli salaatul xawfi bii ma wax la moom la imaamu Malik tànn salaatul xawfi am na fukki façon julli ak ñaar te benn bu ci nekk saxaaba yi ñu ngi ko jëlee ci yonantu bi yonantu bi ñaar fukki yoon la ko mës a julli ak benn ci dundam ñaar fukki yoon ak benn la ko julli léegi nag saxaaba yu bari dañoo wax ne ci moom la xem moom lañ ko jagleel xusuusiya la moo tax gisuñu fenn fu ko Aboubacar jullee gisuñu fu ko Seydunaa Omar jullee gisuñu fu ko Seydunaa Ousmane jullee waaye téere yi saxal nañ ne imaam Aliyu julli na ko kon nag dugul xusuusiya kadalo bu yàlla jagleel yonantu bi ak xeetam wi yépp waaye fukki façon julli ak ñaar moo am ci salatul xawf bii la malik tan xolal bi imaamu saafi yu tànn saafi yu mu su fekkee julli ga julleeg wàññi la nañ xaaj arme bi ci digg bi mille personnes lañ juróomi téeméer yi muy cinq cent yi nañ téye ngànnaay ya di garde yeneen cinq cent yi nga xam ne da nga ñëw kabaar ci gannaaw iliman iliman jiite leen ñaari rakkaa comme niñ ko xamee comme julleeg wàññi rek bu defee ñaari rakkaa yi taaye sëlmal ñooña door a dem gannaaw bi ñu taayaa sëlmal dem jëli seen ngànnaaya garde ji gaa doon garde ñoo ngi ñëw imaam ja jugaat julli haa yeneen ñaari rakka ci beneen kuréel bi ndax imaamu saafi yu dafa daganal kuy julli naafila mën naa jiite kuy julli farata mu ne nag su boobaa julli gu njëkk gi mooy imaam joo xam ne dafa jiite farata ci ñuy julli farata waaye nag julleeg ñaareel gi mooy ilimaan joo xam ne dafa jiite naafila ci ñuy julli farata saafi yu moom daganal mais Malik d'accord ci Malik nee na man ngaa julli naafila nga roy ci kuy julli farata bu la neexoon tey ngay naafila fekk kuy julli tusubaar mbaa tàkkusaan nga nga kàbbaar ci gannaawam julli dara nekkut ca bu sëlmalee nga sëlmal mu xam yoolab farata nga xam yoolab naafila waaye nag yow miy julli farata mënuloo roy ci kuy julli naafila saafi yu nag nee na julli julli rek la kuy julli naafila mën naa jiite kuy julli farata loolu waral moom mu mu di julli jiitale kuréel ba ne Euh, boo jëlee nag bi Abu Hanifa tànn moo gën a sax far compliqué kon bu ma ko doon topp naa ko topp ba mat fukki façon julli ak ñaar ci salaatul ci salaatul xaw fi waaye wax naa la bu ma la waxee bu Maalik bi ak bu Saafiyu bi te ñaar yooyu ñoo ci gën a siiw bu ko defee ñu doyloo ko ya ci des nag boo demee ca téere ya rawatina ta boo demee ci tafasir yi maraaq yi maa nga dem ci tafsiru xaasin mu gën la koo leeral kon moom lay wax yonentu bi ni julli gi duñ koy defee moo tax mu ne ko wa ida kunta su fekkee nekk nga yow yonantu bi fiihim ca ñoom saxaba ya fa aqamta taxawalal lahum ñeel leen salaata julli fa aqamta nga taxawal lahum ñeel leen salaata julli fal taqum na taxaw taayifatun kuréel mi nun ca ñoom su ko defee maxaka ànd ak yow na benn kuréel ba jug ànd ak yow wal yaxudu nañ jàpp aslihatuhum seen ngànnaay ya fa ida sajadoo buñ sujoodee fal yakun nañ nekk min waraayikum seen gannaaw ñoom ña julliwuñ bu pëgg bu ngeen paree nag bañ paree ñoom wal taati na dikk taayifatun kuréel oxra beneen lam yu salloo ñoo xam ne julli wuñ bu ko defee fa yu salloo ñu julli maaka ànd ak yow wala yaaqutu nañ jàpp xisruhum seen ak maytu seen ak seen ak matukaay wa aslihatuhum ak seen i ngànnaaya wadda ngee jula na nañ xam ne kafaroo bi dinañ law na seen ak sàggan an aslihatukum wali seen i ngànnaay su am teatukum ak seeni i bagage fa yamilu bu ko defee yamiluuna sabab soosa maanaam danañu jeng mooy danañu danañu maasale alaykum ci yéen maylatan ak maasale waaye tamit ngay genn wala nga ne fa yamiluuna danañu bombardé alaykum ci yéen maylatan ak bombardé waaye tamit ngay genn waaye walaa junaa déet bàkkaar alaykum ci yéen in kaana bu nekkee bikum ci yéen asan lor min matarin ci taw aw kuntu wala ngeen nekk mardaadi way feebar an tadaxu ngeen tëral aslihatakum seen ngànnaay yi wa xuzoo ngeen jàpp xisrukum seen may seen seen seen seen matukaay ina laa naka yàlla aada xat na li kaafa ñe defee féri azaban mbugal mu ngi ne may borom ak doxa dal kon salaatu gi sax ni ko Abu Hanifa déggee moo gën a compliqué ci julli gi moom bu fekkee julli wàññi la ilimaan gi day dem ca kanam def benn rakkaa maamoom ya nekk ca gannaawam ànd ak moom benn rakkaxa ba bu ñu paree ba benn rakkaxa bi bat rek fa la ñuy xam ñi dem téye ji ngànnaa yële ñeneen ñële ñëwaat am benn rakkaxa su ko defee bu ñu demee ñoom ba seen benn rakkaxa bi mat kuréel bee door a ñëwaat fekk ilimaan ji fa muy euh, fa fa mu toog noona di leen xaar ñu indi benn rakkaxa bi ba pare mu door a taaya sëlmal ànd ak ñoom su ko defee ñee door a dem ñëw indi seen benn rakkaxa bi taaya sëlmal loolu lu compliqué la loolu mooy julleeg Abu Hanifa ki mais Malik tànn ko bi ma la njëkk a wax rek la Malik tànn moom nag aaya ji noonu la ko déggee moo tax ko nag nañ ànd ak Malik rek fii nag boo gisee mu wax taw dafa wax ne jullit fu mu nekk war naa jël matukaayam ci ngànnaay te sa ngànnaay ku bañ a daw dangay nga ngànnaay góor bu bañee dawal moromam góoram fu mu toll nay armeew waaye nag boo nekkee góor say say manam kaar la te amoo sa ngànnaay soo moytu da nga dawal sa ya, lele sahaba yalla ne sahaba yi de la sen matukaay fu ngeen toll yor len tegal fu ngeen nek yor len sen xej waye nak mune bu tawé nak jéggal na len ngeen ñi wara ngeen ngeen te ngannaay xam nga taw fay ñew toyal sa yëre yi mu toy xep yow sa gis nga ba pare boo bëggee yorewaat ngànnaay dafay diis yàlla ya, ko bëri yër ma mu ne soowa nak man ngeen bañ bu len sen ngannaay sori waye man ngeen ko ñàkk xanu da koo wàccee ci abdurahman ibnu awf da doon taw mu tëral mu mu tëral ngànnaayam li dal na ko moom mi yonantu bi sax xaswatu zaati imirin dafay taw mu dànd ay saxabaam soxla boppam benn waaju bon fekk ko fa di xaw rasu fekk yonantu bi xamul ngànnaay dafa bàyyi ngànnaayam fële moom kenn rek waaja daw a daw ba fekk ko moom kenn mu tiim mu toog tiim wéet kenn nekku fa mu bocc jaasi génne ko ana kan moo tere ma faat sa bi yonantu bi ne ko yàlla moom bu wéetee yàlla lay wéttali ko ku wéttaliku yàlla lay wéttaliku waaja baat boobu diis ci moom mu tiit ba jaasi ja rëcc ko ñeen ngeen ne déedéet jibril moo ko cojjal jaasi ja rëcc ko waaye lu ci mën a xam da ja rëcc ba jaasi ja rëccee nag yonent bi jël jaasi jooja téye ko ne ko waaw yow nag tey kan moo mën ma faat sa bakkan bi mu ne ko xanaa nga gën ma rek ko doxal jéggal naa la kon moom jëmm la ju sell joo xam ne kum jekku jekkal la waaye bokkul ci ku muy jekku di la jekkali waaye jekku naa ko tey ma jekkali ko ba xam ne du ma moromam du ngóora duut baax kon loolu dal na ko waaye bëgg na daal góor bu fekkee man ta dawal moromam góoram ha nay bàyyi xel ngànnaayam yi fu mën a toll ngi daana ci aaya ji yàlla ne fa ida qadaytum su fekkee passé ngeen asalaata julli ga jeex na faskuroo na ngeen tudd laaha yàlla qiyaaman ci taxaw wa quudan ak jékki wa ala junubikum ak seeni wàll fa ida tamantum fekkee dal ngeen fa aqimoo na ngeen taxawal salaata julli ina salaata naka julli kaana nekk na ah, maanaam kitaaban Ah, di di luñ farataal mawquutan di luñ waxtaan la moom na ci way gëm ñi mu ne maanaam nag su ngeen jullee nag ba julli gi jeex tudd leen yàlla ibnu Abbas mu ne tudd yàlla mooy jaamu yàlla gu amul waxtu mooy jaay jaamu yàlla gu amul limite mooy jaamu yàlla gu amul coono tudd yàlla tudd yàlla dafa yomb coono xamu ca waaye bu tudduñ ko waxtu julli gaa ngi ni mu ne isa kaanaan mu ne kitaab mawquutan xoor weeru koor kutiba alaykum siyaamu shahru ramadan am na waxtu xoor weeru koor joxe asaka am na waxtu waatoo xaq yow ma xasaadi aj màkka am na waxtu alxaju ashurul maalumaat waaye nag tudd yàlla moom yàlla nee na nu ngeen ko dee ma tudd jamono ju ne ngeen ko gën a bëri léegi gën a baax jaamu yàlla yépp na comportement bu koy defee bu ñu woon julli léegi ñëpp taxaw ñi xam ngànta toog ñi xam ngàntay toog wéeru ñu ko mënu tëdd xoor weeru koor am na comportement bàyyi lekk bàyyi naan bàyyi jotee aj makka xamna comportement la laxasaayu tabarakallah armalu di wër kaaba gi dox safa ak marwa tuddu yalla nak amul comportement bu la nexé nga jaaxaan di ray sa kollu bi tuddu yalla bu la nexé nga tëddee sa ndayoor bi tuddu yalla bu la nexé nga tok di xelli ataya ji tuddu yalla bu la nexé ngay dox di tuddu yalla bu la nexé nga nek sa direction auto bi di tuddu yalla bu la nexé nga nek sa ordinateur bi manipuler tuddu yalla moy jaamu yalla go xamné amul melo fo tollu rek man ko def yàlla nag dafa bëgg comme ñun dañoo manqué te moom turam bi moo ñu tax a mat fu toll rek nañu tudd turam bi heure bu nekk rek foo toll del tudd yàlla del sàbbaal yàlla loolu la yonent bi waxoon saxaabi yu ba boo bëggee texe daal sa gémmañ gi fu mu toll nay tooy ci tudd yàlla sa gémmañ gi bu mu dañ mukk ci tool tudd yàlla kon tudd yàlla ngoog amul limite jaamu yàlla yépp am na fu ko yàlla limité julli ñeenti rakka ñett ñaar mënu koo passé xoor weeru koor ñaar fukki fan ak juróom-ñeent mbaa fanweer bude aj ñetti weer oh, woor yi diggi tabaski ñi ne ñaar fukki fan ci tabaski ne fukki fan tabaski ne tabaski lepp boo ne joxe asaka ay xet ñaar fukku tuddu yalla nak yàlla dafa kuro laa sikran kasiran tuddu len ma lu bari rek lu bari nak waxul ci ñun de mais lu bari ci mom lu bari ci yalla ken xamu nim toll num gëna gën gëna bax kon nak benen bi nak mu ne bu ba dogal ngeen doon ndax gi mala wax non ñi mëna kaajale non yi ilimaan ji jiitu léegi léeg xare bi xegg foo xam ne du ko man bu fekkee dañoo ñëw xéeféer yi songuñu xare bi nar a dem yàgg balaa xare bee jeex waxtu bi jeex li lay xamal julleeg fooraay ga ak waxtu wi ni mu fooree mu ne kon xare leen ci biir xare bi julli leen ci biir xare bi xéeféer yooyu seen deret jay sottee seen yaram wi yàqatul seen julli ga doonte deret sobe la su boobaa nag mën ngaa fekk ab xéeféer nga dëbb ko xeej na mu ci rukkoo mën nga koo jël galgal ko deggarti ko namu ci sujjóot mën ngaa ñëw toog ci digg ndiggam li di ko di ko rokkas ay kurfeñ namu ci taaya moom daal noo manee rek boobu daal kon noo manee rek yàlla na ne bu ngeen defee noonu nu ngeen manee noonu ba far xéeféer ya daw waaye julli ga jeexagut dañoo def noonu ci façon boobu ci façon noonu ma wax la son na am ñaari rakka julli ga noonu ya jeex julli ga des ñaari rakka kon ñaari rakka ya ca des nag allahu akbar jàng fatiha ruko sujjóot tok taya, non lañ koy motalé ilé ñaar yéli loolu la hal bi laajoon ñaar yi li la hal bi laaj kon non lañ koy défé yalla dang koy jamo ci ni nga mané rek ak lim la mayé ku bëgg wutal jamono lu xamut nga sonu kon li la wax né kon mom lañ koy défé julli kon jika julli forna dé julli forna yalla digal nañu ko mom julli ci juroomi hanam wax nañu né taxawal leen julli taxawal julli ak julli duñ benn mooy julli war a am lu mu baxi ci yéen taxawal julli piir boo ko defee dootoo sàcc doo fen doo njaalo doo lekk xal li jàmbur doo jëw doo xas moo tax mu ne wa aqimu salaata waxuma taxawal dama ne dama ne ngeen taxawal julli taxawee julli ak taxawal julli duñ benn ñaareel ba mu ne wattu leen ko bu leen sànq wenn waxtu moo tax mu ne xaafidu ala salawaati ñetteel ba mu ne sàmmuwante leen ak waxtu wa inna salaata kaanat alal muminina kitaaban mawquutan ñeenteel ba mu ne bala ngeen a julli na ngeen laab ci ndox bu ngeen amee ngant ngeen tiim ya ayuha alladina amanu ida qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydikum ila almarafiqi waaye timit bu mu paree tamit bu juróomeel ba mu ne bu ngeen di julli na ngeen sàmmuwante ak mbooloo ma da leen dem ca mbooloo ma julleeg kenn julleeg mbooloo xëppee na ko ñaar fukki daraja ak juróom ñaar moo tax mu ne war kaxoo maa raakiina yàlla nag bi mu yi nit ña def ñetti xaaj xaaj bu njëkk ba ne ko yow yàlla yaa santaane julli ñun julli wuñ gëmuñ julli julli wuñ ñooñu mooy xéeféer yi bu ko defee nag léegi abu jahlin mooy seen jiit moom la alquran ne fala sadaqa wala salla ñoo ñoom ñooñu moom safara la jëm loolu bu ko lu yàlla laaj masalakakum fi saqara ñu ne qaalu lam naku minal musallina ñooñu seen biir jeex na beneen xaaj ba ne gëm nañ julli mais ñun julliwuñ ndax ñun am nañ kilifa yu baax seen jaamu yàlla nga mën nañoo yóbbu xale ko mooy yahood yi ak nasaraan yi moom la alquran ne fa xalafa min baadihim adaa'u salata wattabahu shahawati fa sawfa yalqawna ghayyan ñoo ñoom safar la jëm seen bir jeex na beneen xaaj ba nak moy ñi nga xamne ñu ne yow yalla gëm nañ julli waye nak dañuy gis tal bu ngeen ni ñi gisee ñu julli bu ñu kenn gisut ñu bayyi bu ñu jiitalee ñi rafetal bu ñu julé ñun kenn ñaawal bu ko bu ñu ñi del fa saar ya gëna guddé ko ya gëna a ba gaay ya xamne ñun yalla bu fekkee ñun kenn la nag nu ñu neex rek moom la wax ne wa isa qaamoo ila salaati qaamoo kusaala lu tax mun a yuraa'uuna naasa mais walaa yaskuruuna laaha illaa qalilan ñooñu mooy munaafiqiina te innal munaafiqiina fi darakil asfali mina naar ñu seen mbir jeex na beneen xaaj ba nag mooy ki gëm julli piir sàmm waxtu wa mbooloo ma laab ga teewlu ga toroxlu ga kooku sayyiduna Muhammad mooy seen njiit moo wax ne def naa sama xol bi bu tàngee li koy seddal mooy julli ñoo ngi nag ak yonantu bi ñooy dem aljana جيغ نا كاوي موم لا القران نه على صلاتهم يحافظون اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ليما واخ لا ييب نين سي روحول بيان بو ديمي دا كو فيك ني لا توختالي ايات يي بن بار بن بن بار بن با لين ملني كون ني ملني وقت وي داب لو سي لير يالا لو سي